lii ñu complot gendarmerie Touba Belel secteur ba ca la bokk par parle au nom de toute la population ñu complot ko gendarmerie Touba Belel bëgg leen fee jële ñun tëddatuñu woon ba nelaw man amal guur gendarmerie ba kenn yeewatutoonum xar bitig bu fa nit ubbi ñu tëj ko télé boo monté tey bu amee ñetti fan ñu dekaawee ko ñoom yàlla indi leen fi ñuy ay jàmbaar yi fàkk tëdd di liggéey may lii may wax yàlla tax ma wax ko weeru koor laa ne te loo wax danga ko waxaat ñuy nekk ci tali bi vingt quatre heures sur vingt quatre heures mbas mii ñuy wax li ñu ci liggéey benn nit bu ko ci liggéey fii ci Touba amul li fi gendarmerie Touba Belel te secteur ba ma dëkk amul ku fa du takk masque amul ku fay taxawaalu ñu fanaan ci tali bi dugg ci quartier yi ah woyu circulé tut bandi circulé tut ay nit jóge fële ci àll ba ànd ak journaliste yoo xam ne nii ay lobby kët lan dóor kët marto dama nii as gor buy liggéey day seetal liggéeyam teg ko ci saratal mustahim ndax lobby ak dóor mart ak sos ak wax lu dul dëgg lu mu la may bis dana ñëw mu xañ la ko te journaliste yi bi bind lii yemelewu ko rek te gendarmerie Touba Belel def na ko docteur Dieng mii ñëpp xam di koy docteur Dieng mii ci hôpitalu jéemul bii ku ko neexut mu bindal la lu ko neex ku ko joxul xaalis loo ko bind loo mu jox may lancé appel sëñ Sidi sëñ Abdoulaat nag di ko ñaan ne ko gendarmerie Touba Belel bii nanu ci jóg ñii ñu kompaloo ba jëlee leen fii te nu liggéey raxas ko bañ nan ba seen secteur euh, jéggi siraat la ko nit ñi tudde secteur ba gendarmerie Touba population bi tuddee jéggi si rak ñoom duñu gendarme yi corrompu yi bu nu gisoon ci ñoom benn défaut ñëpp ma xam addina bépp ma xam amul ku may ragal amul ku may farfarloo amul kenn ku may mën dugal ci ay lobby wala lu dul dëgg mais lii may wax ci weeru koor laa ne yàlla tax ma wax ko liggéey bi ni fi liggéey nit musuñu ko fee liggéey nit ñi dañuy nelaw ba yandoor ñuy dugg ci koñ yi di fanaan ba bët seet wecc six heures du matin vingt quatre heures sur heure bu ma jógee quatre heures ca oto ba liggéey fa liggéey bu set wecc raxas secteur ba ba mu set wecc ay nit koppaloo ki journaliste lobby kët dóor kët moosu leen a dégg kenn koo xam ne nii gendarmerie Touba gendarmerie la dóor fii ci secteur Touba fi ku fi gendarmerie mosoo leen a dégg gendarmerie bu dóor kenn wala gendarme bu dóor nit wala mu def nit ñay doore xam nañ leen ñu koppaloo journaliste ñëw bëgg a yàq lii seen réputation sosal nit te lii ñu leen mujj a sosal wax ko ci Allo Dakar yi loolu ma nga xewee ca Daara Jolof ñu njaboot ñu bëgg leen yàq te loolu man duma ko seetaan tey population ba duñ ko seetaan ndaje mi tax nag ak li nu tere waaye kon danaa génne population ba bépp ñu def conférence de presse ndax kat li nu defal nit musuñu koo defal li nu gendarmerie Touba ba la defal ca secteur ba kenn daawu fa nelaw loolu nag maa ngi koy lancé appel son président Macky Sall gendarmerie Touba Belel bii ñuy koppaloo bëgg koo tëj du fi amee tey du fi amee suba du fi amee gannaaw suba ndax ñun ñu jóg d'accord nañ ci ñoom mais ñu luubu koppaloog journaliste yoo xam ne ay corrompi lañ xaalis la ñuy wut amuñu ngor amuñu diine ku nu tagg tey loo leen joxob xaalis loo bëgg ñu waxal la looloo war a jeex nag commandant bi nag maa ngi koy lancé appel xaw ma ko sama bët mu sa tege ci moom mais gis naa la ay élément ba sama secteur ma ma mais bu ma leen ko waxee ñu saafara ñuy fanaanee patrie ba set wecc ñu dem raxas secteur ba ba mu set wecc nit ku dëng nag du bëgg nit ku baax liggéey bu set wecc lañ fa liggéey ñu jël ay journalistes yu corrompus wax loo leen loo xam ne nii e, e, e, lanu wax dara du ca dëgg noonu lan ko sosalee docteur Dieng lii nag dama bëgg mu jeex te gendarmerie tout ñii ñu fa jële ñu delloo si waat leen fi ñu dellu si seen liggéey ndax liggéey bu set wecc lañ fa liggéey nit bu jëwun nag du bëgg ku baax ndax ñoom doore wunu xaste wunu mais lanu sàkk woon ci nit ñi pour ñu takk ay masque dugg ci seeni kër loola nit ñaa leen ko doon defal te ci bi yar lan ko lan ko defanteeg ñoom kon maa ngi lancé appel ñi jóg pour faagaagal bëgg a tëj gendarmerie Touba Belal du jàll nee leen Adja Soda Dieng nee na du jàll ba ñu ma ci dara du jàll